waaw sama xalaat mooy euh, mbégte ci ñi fi ñëw parce que bu ñu fàtt ne tey suba rek lañ autorisé parce que bu ñu ko autorisé démb ci suba la démb ci ngoon sax di nga gis fii lu ëpp li fukki yoon waaye ñoom ñoo ko tey xaar ba tey suba ñu doog a si autorisé malgré tout Sénégal yaa ngi fii wane seen euh, naqar wane exprimer loo xam ne boobu ba léegi ñu xaar ñu exprimer ko ñu leen koy interdire wane ne ñoom d'accord ak li nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi maanaam yore ko ci violence maanaam yore ko ci torture maanaam yore ko ci jàpp ay doomi aadama tey jii ay mille personnes yu ko ëpp mille cinq cent xëy na ñu ci biir prison yoo xam ne amuñu fay def muy Alioune Sané muy Ousmane Sonko muy Abdoulaye Pape Laye Touré muy euh, Mamadou Ndiaye bu Bambey TV muy Cheikh Oumar Diagne di keneen di keneen amuñu lu ñu def ci kaso bi. gis nañ fi barki démb ay enseignants ñuy ñu libéré ñu def juróom ñaari weer ci ci prison bañ leen di génnee amul benn jugement lu tax ñu génn leen instruction maanaam instruction moo lay dugal kaso non maanaam décision procureur ministre gouverneur wala préfet. ñoo lay duggee ci kaso benn décision moo lay génnee waaye justice amu ci yoon loolu moo xew Sénégal moo tax tey jii ñu ne nañu libéré Alioune Sané nañu libéré prisonniers politiques yëpp parce que amul ñuy def ci kaso bi. waaw ñu gis ne bi choix bi ngeen jël mooy euh, diggante G2 ak Liberté 5 yéen ko choisir wala nguur gi ñoo la kii ñu mu traité autorités yi ñoo leen ko ñoo leen ñoo leen ñoo leen fixé fii. waaw xam nga organisation société civile yi euh, ñoom euh, Amnesty ay RADDHO ay Ligue sénégalaise ñoo doon ñoo def demande bi. donc ñun ñu jàpp ci rek donc mu ñoom dañ leen ko dañ ko dañ leen ko imposer. donc mais euh, xayrul na demee noonu sax garaawul. waaw waaw mais bon puisque ñoom fii lañ bëgg ñu defee ko nii rek mais gis nga ni ñi ñëw nañu. te yàlla xam na ne bu ñu ko autorisé woon démb ci suba lu ëpp fukki yoon lii dina fi am. waaw donc euh, ñu ngi ñaan daal Macky Sall ak gouvernement ñu delloo seen xel bàyyi interdiction yi marche yi parce que peuple bi dafa bëgg a wu. ñu dem ci ay élections libres. inclusive et transparente ñu bàyyi nooteel bi bàyyi maatey bi bàyyi euh, jaay doole bi nañu bàyyi sénégalais yi ñu libre ñu dem ci élection yu leer